Euh, de sa présence cérémonie bi donc mu nek mbégte bu reuy si ñun mu ñëw fii te yeen ñep dégg ngeen aussi jappalé bi nga xamné jappalé ko nako école bi. muy muy première fois ñu koy def euh, tay ñu paré né ko ko xamante tay tey doomu Pikine la. Hmm. lan moo tax ngeen choisir Pape Sagna Mbaye ci Pikine. en fait c'est c'est pas la première fois chaque année dinañ def cérémonie d'intronisation bon, des fois c'est des maires et des parce que euh, chaque fois lii dafa bokk ci parce que da ngay yi à être des futurs leaders de futurs responsables le fait nous euh, jël Pape le pape euh, def ko comme parrain au cérémonie bi xale yi dañu la référence parce que référence yi yi ñu bëgg jël référence du référence dañu soxla référence comme dañu nek ci domaine jàng bi yo xamni ay nit yu am xam-xam lañ ay nit ñu fonk jàng lañ ay nit yu nango liggéey lañ té pap Sagna ku xol cursusum xol euh, cheminement xamni que mën nañu sukkandiku ci ay jëfam pour def lu reuy ci dëkk bi ndax mënoon naa toog moom li am rek mën nako doyax mais il a opté pour travailler pour son pays

ñoo xam ni da nga bokk ak ñoom vision donc da ngeen xëccandoo ensemble et loolu tax na qualité résultat yi ak qualité njàngale mi donc résultat yooyu nag mooy tax parents yëpp di ñëw parce que ku sañoon sa doom am li gën donc boo déggee ni que école bi kat mi ngi def ay résultats automatiquement kon da ngay am foofu wóolute pour yóbbu fa sa doom donc ñu profiter ci occasion bi aussi pour remercier parents d'élèves yi nga xam ni am nañ wóolute ci ñun ba jox ñu seen njaboot di ñaan yàlla yàlla nañu leen ci yàlla defaral lu weesu seen jort mais en fait, le secret de ce Notal, c'est le travail et une belle collaboration entre moi et les collaborateurs. Il y a toute une équipe qui est derrière moi. Bon, vraiment, machallah, nous avons fait des choses C'est une relation avec l'autorité locale ou l'État Parce que vous savez que l'administration, il y a des manquements, hmm. relation excellente avec l'autorité ak euh, les autorités académiques les autorités de la commune les maires vraiment on a de très belles relations parce que nous avons une qualité ku le euh, département bi ngay gérer nga gis fa ay structure yo xamné ne ñu ngi lay jappalé ci sa politique et jàppale sa politique bobu du dara lu dul di def ay résultats donc nous ñom ñep vraiment aussi il faut amal amal remerciement parce que ñu fonk Seydou du Tall la preuve la plupart d'entre eux sont doom yi fii la ñu nekk ñu bëri seen doom yi la ñu bac fii la ñu BFM donc on a vraiment de très belles relations donc ba si inspecteur bi ñëw tey gis ngeen ko li témoigner toujours sur Seydou Tal tey li témoigne témoigner si cérémonie boobu fu mu dem loolu lay wax des fois ça, ça fait un peu de ça crée un peu de jalousie mais moom il le dit toujours haut et fort da leen comme référence Seydou Tal dem leen ngeen laaj Seydou Tal nu muy def donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a vraiment une très belle collaboration entre moi qui qui. vraiment amuñu dara ben donc euh, di sant aussi sama collaborateurs parce que dafa am

de même que professeurs yi nga aussi ñu ngi parents d'élèves yi nga mais encore une fois remercier monsieur le ministre Pape Sagna monsieur le ministre Pape Sagna Mbaye sama relation ak moom du bobu xalatul won sax dina maire moment bobu nga xamni xalatul won ni dina nek maire wala bu ko na sax ci politique bi moment organisation bu école participer donc euh, lii mu def nii c'est pas une première donc euh, ñu ko ñaanal yàlla euh, charge yi nga xam ne jox nañ ko ko mu oyof si moom te am si ndam bu rëy rëy rëy merci.